di santaat yàlla mi ñu may kàttan may ñu fekkee benn dellusi def waxtaani fajar di wa alhamdulillahi rabbil alamin abada alhamdulillahi kasiran alhamdulillahi ala kulli haalin mooy ñu ngi si ak waa këram saxaabaami ak képp ko am yaa ngi bi yowmal qiyaama di ñaan yàlla ñu yàlla yokkañ sutura yokkañ yukkatan yokkañ wér ñu ko mboolem war sa ka leen war sa ka leen war sa ka leen yi waa jigéen yàlla sàmbaleen aar yàlla boole ñu defal ñu xéewali aduna xéewali àllaxira mucc ñu safara mbokk jullit ñu waa fi si yi muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sallam di jàngalekat ma boobu ba léegi ñu nekk suratul fatiha di sura bi nga xam ne moom la ñu ubbee alquran muy suratul fatiha ñu aya maliki yawmi diin boobu alhamdulillah ñu leeral maliki yawmi diin gannaaw maliki yawmi diin lan ban aya moo si tegu kaala muallif rahimahullah iyaaka na'budu iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in insha allah ay na'buduka ghayraka ahdan bayna abd wa bayna rabbahu an la ya'budu illa iyyah iyaaka na'budu ne yàlla yow dong mu nekk loo xamee ne fasante la si diggante jaam bi ak boromam jaam bi ne yàlla yow dong laay jaamu amul keneen nag waaw donc yow keneen koo xam ne am na place suma xol si suma wàllu jaamu ba ma ko war a jaamu ku dul yow yàlla subhaanahu wa doomi aadama foorewu ko malaaka foorewu ko jinne foorewu ko seytaane foorewu ko alal foorewu ko doom foorewu ko waajur baay yaay kenn foorewut maqaama bu amut maqaama boobu ba ma war jaamu ñooñu ku dul yow dong yàlla subhanahu wa taala wa iyyaka nasta'in ne yàlla amul si kenn ku may sukkandiku ku dul yow amul si kenn ku may weeru ku dul yow yàlla subhanahu wa taala suma yaakaar nekku ci kenn ku dul yow yàlla subhanahu wa allahu akbar bon di ko di jànga fatiha boo ñëwee bi si aya bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bépp jullit buy jullit buy jànga fatiha bi egsi si aya bi daf lay leer ne li nga wax yàlla foofu boo defee leneen nag a ah, or nga yàlla boo jaamoo keneen tamit or nga yàlla boo jëlee doomi aadama te ko place yàlla or nga yàlla parce que yaa wane yàlla yow dong la laay jaamu te si yoo rek laa wéeru te si yoo rek laa sukkandiku bon nag boo defee boo waxee loolu ba pare di julli war a dem jàppa doomi aadama ne doomi aadama bii laa yaakaar àdduna àllaaxira ana sa aaya bii nga xam ne yaa ngi koy jullee iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin dafa mel ni soo ne laa ilaha illa allah laa danga daaxa ba pare dëggal nga ne amul kenn amul benn buur kuy war a jaamu ilallah ku dul yàlla laa ilaha illallah nga ne amul kenn kuy war jaamu si kaw suuf si dëgga ku dul yàlla subhanahu wa taala nga ba pare dal di dëggal ne déedéet kenn amul kuy war a jaamu keneen ak nu mun a mun a mun a toll si maxaama daraja déedéet waaye yàlla donc la ñoo jaamu moo tax yàlla di si ayata ko si wa man billahi wa yakfur bi taaxut mooy ci gëm yàlla weddi li nga xam ne mooy taaxut taaxut mooy loo xam ne doomi aadama nga jaamu lu yàlla rek taaxut la mooy xirem muy nit muy jant muy ndox loo xam rek doomi adama mu ngi ko jaamu lu yàlla taaxut lañ ko nit gi si jaamu taaxut mooy na nga ne déedéet man du ma jaamu kenn ku dul yàlla waaye saay booy jaamu yàlla rek boole si leneen rek yaa jaamu jaamu te loolu mooy kufr loolu mooy weddi yàlla subhaanahu wa taala parce que li nga xam ne mooy tawxiid nga xam ne tawxiid luñ war di fàttaliku wante la tawxiid société bu amul tawxiid rek société bu dina am fa ndik yonente yépp yàlla si tawxiid la leen yooni bon ñaari mbir am tawxiid mooy nga déggal nga daaxa ba pare dëggal dangay ngay daaxa dëggal ne kenn amul kenn kuy war a jaamu si kaw suuf si dëgga nga ne ah ba mu des yàlla ku dul yàlla subhanahu wa taala lii mooy tawhid nafi ibad an bi dafay daaxa amul kenn kuñ war a jébalu ne moom la ñoo jaamu nga ne xakañ ah, ku dul yàlla subhanahu wa نتمنى فمن يغفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بغروة وثقى سورة سورة البقرة آية نياري تيمير أجرم جرم جرم بينا 256 من سورة الفاتحة آية بي مونيو jàngal ne xakañ iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in loolu yàlla rek moo ko yelloo yàlla rek moom lay war a jaamu noonu waaw qawluhu axadun bayna alabdi wa bayna rabbi an laa yastaciina bi axadin gayra allah xadis imam muslim fi saxiix imam muslim حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي waaw muy hadis bi njàngoon rek yàlla subhana taala mu ne dafa séddaale julli ñaari xaaj diggante moom borom bi ak jaamam yi mu ne fa ida qaala abd إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل mu ne bu jaam bi demee nag benn yàlla iyyaka na'budu iyyaka nasta'in yàlla da di wane ah lii daal moo nekk li nekk suma diggante ak suma jaam bi léegi nag suma jaam bi nag lu ma laaj rek ma ma nangu ko ma jox ko parce que ba nga commencé alhamdulilahi moo ne sant nga yàlla jox nga yàlla wàccuwaay màggal yàlla arrahmaani rahim borom yërmaande àdduna àllaaxira maaliki yawmi diin borom bésu penc mi nga xam ne ñëpp buñ taxawee yàlla de manil mulkul yawm kan moy buuru tey kan moy président tey ña doon oote président ña doon xicoo président ña ko doon ñiiroo di taral ne ñuy rey nit ñi di jàppa nit ñi di tëj nit ñi foog yëpp pour nguur kero yowmal qiyaama kenn kenn si ñoom du wax ndiki yàlla nga ne al mulku lillahi al waahidul qahaar bés boobu nguur di yàlla ya dong dong kom dong moom kottan amul keneen ku kuy taxaw foofu ne man buur laa woon wala man président laa woon ota mu ne yàlla séddaale na julliyam bi nag si ñaari xaaj jaam bi bi mu tagee boroomam ba pare bene iyaaka na abudu wa iyaaka nastain foofu nag yàlla subhanahu wa taala won na jaam bi ne axakañ jox nga ma suma cër ba mot sëg léegi de suma jaam bi lan nga buga lan nga bugg man yàlla ma ma defal la ko ma nangul la ko loolu si suratul fatiha rek la am lu tax kenn mënut juli juli julli mbokk julliti sa julli wér te jànguloo fatiha maanaam boo julli yow kenn jànguloo fatiha amuloo juli bu dee yaa ngi julli si gannaaw imaam boobu comme niñ ko faram-fàccee woon imaam bi su jàngee fatiha masalan mu ngi ko jàng si kaw bu jàngee fatiha no eh, ba jeexal rek teg si saar wala aaya yow mi nekk si gannaaw maamum bi da nga war a déglu rek imaam bi fatiha bi mu jàng yóbbaale na la waaye su fekkee imaam bi dafa jàng fatiha noppi si diggante bi yow mi nekk si gannaawam ñu ne nga war a jàng fatiha da nga war a jàng fatiha bu dee julli tisbaar la ah kañ imaam a ngay jullee yow jàngal fatiha parce que dégg loolu imaam jàng julli taakusaan imaam a ngay jullee yow ah kañ ñeenti raka yëpp da nga war a jàng fatiha bon fatiha yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waxee laa salaata liman lam yaqra al fatiha waaw ku jàngul fatiha daanaka amuloo julli bon aaya hadis bi yàlla subhaana taala wane ne xaaj na julli ñaari xaaj waaw diggante moom subhaanahu wa taala yàlla ak jaamam yi bon nag bu ne na abudu yàlla ne ko ah kañ léegi yow jaam laaj ma loo ma laaj rek ma jox la ko bon ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy nangu luñ ko ñaan rek si jaamu yàlla ñu ko yàlla nangul waaye yàlla jégal ñu suñu baakaar yi xamat ñu xamut yu mag yi ak yu ndaw yi yu nagu ak yu feeñ yàlla defal ñu xéewali aduna xéewali àllaxira mu ci safara wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallim wa axiru daawana alhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin